واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا دايلا ويا ما mbokk yi jërë ngeen jëf di ziar ñëpp di naan rabbil alamin gannaaw bi nga xam ni fekke nañu Euh, lii di euh, ziar bi ak i tamit euh, muy appelu Seydina Limaamu cent quarante deuxième bu almahdi ñu ñu ngi fii nga xam ni fii la mu nekk muy Yoff jàmmalaay am na benn waxtu boo xam ne waxtu bu am importance la ci li nga xam ne moom mooy appel bi rawatina. muy euh, deuxième jour bi ci deuxième jour boobu waxtu bi nga xamante ni moom mooy ci ay onze heures maanaam euh, euh, yoor yoor bi ci la ku tedd gi woote woon li nga xamante ni mooy ñëpp ñu ñëw wuy si muy appel bi kon loolu la ñuy màggal mu toll si cent quarante deuxième mais moment boobu mu nekk benn moment boo xamante ni. moment d'émotion taalibe yi dafa am lu ñuy yëg ñoom ñëpp muy góor ak jigéen bëri na ci ay jigéen yoo xam ni Euh, ñi nga xam ñoom ñooy croix rouge ak sapeur yi dañ leen doon rawale ak itam ay góor ndaxte ñoom dañ doon daanu leer ndaxte nekkoon na benn moment boo xam ni moment de communion diggante ki nga xam moom mooy ku tedd gi Seydina Limaamu ak taalibe yi kon dañuy jéem a xool euh, ñenn rek ci askan bi ñenn ci taalibe yi ndaxte boo leen xoolee ñu bëri ñu ngi commencé dem ndaxte dal yi dañ ko tëjoon léegi nag dañuy dem euh, toggi ji añ defar xéwal yi euh, bu ci kanam mee ñu bëri daal di mën a yeeweeku ñu xool ñenn ci askan bi wala bokk ñenn ci taalibe yi yëg-yëg boobu ñu doon yëg nan lañ ko mën a expliquer incha allah rabbi mën a góor gi ñoo ànd ci lool mu mel ni ki yéen ñëpp am na loo leen doon yëg te lii manqué na leen woon. macha allah fa tabaarakallah macha allah woote Baye Laye bi jiitu na suñu juddu dañuy santaat yàlla bu baax ndax ñaari at defuñu ko dañu namoon lii di ñaan nag lii lii lii fi ñaan yal nañ ko yàlla tasaare ñu bokk ak jullitu yàlla yëpp ndax ñun dañu bokk ci waa kër suñu doom yi suñu maam yi suñu maamaat yëpp ñu ngi leen denc fii weddi nag moom ji dis bokk ci ndax lii jiitu na suñu juddu aji boo daayelaay bi lépp luñ fi ñaan yal na ko yàlla tasaare ñu bokk ko julliti yàlla yëpp waaw ci barke Baay Laay barke yonent bi tedd bi di ñaanal julliti yàlla yëpp waaw suñu maam yeeg suñu yaay yeeg suñu papa yi ñu ngi leen denc fii ñu bokk ci waa kër Baay Laay li nga wax nii loolu dañ koy dëggal ndax tey fii àddinaa fi ñëw àddina macha allah tabaarakallaa ñii ñaan yàlla yal nañ ko téewe déwén yu baree bari bokk ko li mu fi ñaan yëpp yàlla ubbil ñu fi ay bunti xéewal te yàlla def ci réew mi jàmm defal ko suñu njaboot yëpp yàlla musal nu ci lépp lu ñu ragal musal ci mboolem jullit yàlla barkeel suñu njaboot yi di ñaanal suñu dëkkaale yëpp yàlla leen yàlla defal jàmm maa ngi ñaanal waa Mermoz max maa ngi ñoom a dëkk ñuy defante lu baax lépp luñ fi ñaan fii ci Baye Laye wuñ ñu benn yoon yal nañ ko bokk ñun ñëpp maa ngi ñaanal sama dëkkaale yëpp bàyyiwuma kenn su ma limee demee jum ñi ma ànd nag sama ay doom lañu waaw ah, say ay doom la waaye yàlla ndax de yàlla ndax kii dafa xeesal te yow tey naturel bi tey mu bàyyi laay bi yow sëy naa Isa nga yor moom. Ah, yow yow bul yow ah? dëgg la la. rafet ba de. maa la wax loolu waaw waaw. tey noo noo yëgee euh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ah man nag c'est la première fois may ñëw fii nii waa juste pour découvrir mais macha allah depuis ma ñëw moom franchement maa ngi ñaan rek comme ni ko maire bi waxee di ñaan ñaanal njaboot gi daal waaw topp li nga tey garaaw na trop garaaw na trop waa parce que sama m'a permis ma dugg ci cimetière bi xam nga xool ziyaare découvrir daal loo xam ne mosuma koo def c'est la première fois. moo la gën tey li ma gën a ne mooy. le fait que ñëpp ñëw woote jàmm jàmm ji mooy le blanc ñëpp def la paix daal xam nga ñëpp sukk di ñaan xam nga loolu rek vraiment c'est autre chose daal. la dàq baax na jërëjëf. alors waaw maa ngi leen di ziar yéen ñëpp maa ngi tudd Fakoumba Fall sopp Baye Laye Seydi Aliou Wassalaam waaw macha allah man moom euh, li ma li ma yëg mooy. dama am yëg-yëg daal si Baye Laye Seydi waaw yëg bu ma mën a expliquer daal ndax samay samay maam ñu ngi leen denc fii sama maam bu góor sama maam bu jigéen muy sama waajur eh, sama yaay waaw wax dëgg yàlla doy na waar daal. nga li ma gën a ñaan mooy jàmm rek jàmm laa paix waaw si réew mi am jàmm laa paix kër yi am jàmm ñëpp am jàmm waaw si barke la Baye Laye Seydi wasalaam waaw ah, yàlla def na ñëpp jàmm macha allah kontaan. daa baax seen yaay ji daa baax yéen na ngeen a baax jërëjëf jërëjëf yaay booy kontaan nañu kontaan nañu. yaay ji boo dayala oyama faral insi wal jinni rasulullah ilaykum